loolee lépp lu ko indi mooy désobéissance civique bi nga xamante ni moom la wootee mbir moomu noonu nan nga koy jàngatee. waaw mais xam nga désobéissance civile bu ko waxee c'est une c'est c'est une posture de politique. Hmm. il dit que en fait je ne dispose de ria hmm. mais je dispose de ma popularité. je dispose effectivement de euh, bëgg bi ma ndaw ñi bëgg. Hmm. sans sans être intéressé. les jeunes me suivent oui. ont confiance en moi seen yaakaar laa pour ëllëgu réew mi donc ñooñu ñooy ñooñu lay ñooñu lay waxal c'est à eux que je lance un message oui. pour que effectivement ñu nekk bouclier pour oui. donc en fait loolu rek la mën a wax parce mm. que pour lui pour lui s'il ne fait pas dans la désobéissance civile, mmh, civile mmh. il se jette dans la gueule du loup et il ne veut pas se jeter dans la gueule du loup se jeter dans la gueule du loup mooy ñu éliminer ko ci élection présidentielle yi nga xamante ni foofu carrément c'est-à-dire euh, non c'est d'abord en tout cas la ñuy wax ñoom non c'est jeter oui. dans la dans la peut-être se dire que si je vais à ce procès là xëy na je ne serai pas emprisonné pour viol oui. mais en fait mes détracteurs politique seen objectif mooy que me présenter à la population comme quelqu'un effectivement qui en qui s'inscrit en porte-à-faux avec ce qu'il incarne oui. donc effectivement loolu d'abord la njëkk a bëgg a dindi mais également se dire que en fait je peux compter sur cette mobilisation oui. pour participer aux élections parce qu'effectivement, si force reste à la loi, mhm. de l'autre côté, mais militants ou ceux qui me soutiennent diront force reste à la rue. Analyse nga joxe man dama bëgg am sa position en tant que membre fondateur ak Y'en a ak ni nga xamante ni noonu la Ousmane Sonko taxawee jëm ci procès bi nga xamante ni mi ngi koy séex ak soxna soosu nga xamante ni mooy Adji Sarr procès bi nga xamante ni euh, reporté nañ ko euh, ci bésub ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai bi ñu jëm maanaam euh, mardi prochain mbir moomu noonu séex ñaari nit séexu ko. Euh, juge bi jàpp ne que juge d'instruction jàpp ne que mbir mi dañ ko war a yóbbu euh, chambre criminal mbir mi di dox est-ce que warul tey jii nii gannaaw li nga xamante ne xew na yëpp nit yi si ñàkk seen bakkeen ak mbir yu ne mel ñu dem vraiment ci tribunal ba ñu àtte mbir mi mu jeex benn yoon ngir ñëpp sénégalais yëpp mën a ko man li ma gëm mooy juger c'est comprendre. Mhm. bi ñu njëkkee juger affaire Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang. quand l'avocat de l'État est sorti tubaab la mu ne Ousmane Sonko ne perd pas ses ñu sentir qu'il y a un ouf de soulagement. Mm. bi procès bi di waaj am dama ne bu ma sañoon procès bi dañuy confirmer li am bële passé. d'accord kooku ça permet. Mm-hmm. d'atténuer la tension. sa permet de la l'amortir d'apaisement sax ko tuddee woon. c'est-à-dire ça c'est super important pour moi. Mm. maintenant. ils sont allés en disant que oui le gars qui a le juge qui était là hmm. euh, xool nañ ay postam ay publication am c'est quelqu'un qui euh, qui a fait c'est quelqu'un effectivement euh, c'est un sympathisant de Pastef ou c'est un militant de Pastef oui. donc effectivement après il y a eu appel et l'appel a été défavorable à Ousmane Sonko hmm. finalement il perd ses droits mm. civiques mais li ma gëm mooy euh, bu ñu tollee fenn fii juger c'est comprendre hmm. si je sais que si je vais arrêter si je t'arrête même si tu as tout faux su ma demee jëli la war la yóbbu procès même bu fekkee amoo dëgg des vies humaines dinañ ci perte lu bële bëri su booba hmm. je vais revoir je préfère effectivement annuler ce procès là. d'accord parce que il faut protéger le Sénégal. parce que yow position mooy ñu annuler procès bi. oui à mon avis. oui parce que pour man. depuis combien de temps. Hmm. lan la ñu procès bi jural. deux ans et quelques ay nit yu génn àdduna depuis deux ans ay nit yu génn àdduna. Hmm. et ni l'opposition ni la société civile ni le parti au pouvoir. Hmm. indiwul ay leeral ci nit ñooñu de c'est-à-dire on passe sur ces morts pour aller pour encore avoir d'autres morts. Il y en a eu ces derniers jours. Oui. Un, policier, un gendarme en a perdu la vue, mm. etc., mm. la vie, mm. etc., etc. boobu accident la ah oui oui précisé mais mm. dama ne. oui oui d' accord accident la. mais s' na n' y avait pas cette tension. s' il n' pas cette mobilisation. du am panique. Mm. parce que xëy na ki doon dawal oto bi il a perdu le contrôle ba finalement joggi ci benn policier mu mm. rey boppam wala xëy na sax policier bi def une fausse mauvaise manœuvre. son arme effectivement mujj gaañ boppam. maintenant est ce que jar na ko. est-ce que jar na ko. Hmm. c'est-à-dire il faut qu'on il faut. mais justement est-ce que du looloo tax mu war ko jar justement ndax nit yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan est-ce que looloo warul tey jii procès bi ñu jëm ko xam ku ci nekk kan moo tooñ kan. ngir finalement ñu vider dossier mu jeex mais lan nga seetlu seetlu woon yi saa yu ñu yëkkatee procès bi ay nit dee. Hmm. mais nañ ko bañ a yëkkati parce que parce que au-delà de tout. Hmm. tôt ou tard la vérité éclatera. évidemment. bés dina ñëw mhm. la vérité éclatera la vérité sur Metsä yi mhm. elle a éclaté mhm. des années plus tard il y eu des gens l'essentiel est que la vérité éclate et que les Sénégalais sachent parce que kenn mënul ce qu'on fait kenn mënul différer la vérité mënul wéy on ne peut pas différer c'est-à-dire fi mu nekk nii dañ nekk ci benn situation boo xamante ne ku ci nekk da nga taxaw sur une radicalité sur une extrémité mhm. te extrémisme boobu pouvoir bi nekkee extrémisme boobu effectivement ñoom Ousmane Sonko nekkee dara baaxu si c'est-à-dire dara baaxu si mhm. c'est-à-dire finalement mhm. c'est le Sénégal c'est le Sénégal qui va qui perd te après leneen li ci topp aujourd'hui aujourd'hui reste à la loi ñeneen ñi jàpp ne injustice la ñuy subir ak ñett et cetera et aujourd'hui spécifiquement les choses se passent à Ziguinchor des fois tu vois des gens mettre des noms sur les personnes qui décèdent on dit oui Diédhiou la sant Diatta la sant. oui nangam la sant. des choses à éviter oui. et ça nous mène cette affaire peut avoir une tournure beaucoup plus compliquée. boo xamante ne sans précédent. en effet oui. elle peut avoir une tournure ethnique. ni ñu koy parce que Sénégal ce qui a fait sa beauté c'est toujours. les on les appelle les Diatta. les Diop on les appelle les mhm. Traoré. Mhm. les Mendy se marient avec les avec les Mendy se avec les. en tout cas loolu problème amuñu ko. te yàlla buñ ko mos a am. oui c'est ça il li leer mooy situation bi quand même yëngu na loolu situation sociopolitique bi doon na situation boo nga xamante ni yëngu na torop ñu ngi fàttaliku wala boog situation bi daf ñuy fàttali un peu li nga xamante moo xewoon en tout cas en 2011 2011 ñu doon gis mouvement Y en a marre tey daanaka seen baat jibatul torop lan mooy expliquer loolu. mi ngi jib ci yeneeni baat mm. ki nga jàngal mm. mi ngi jàngale maanaam li nga jàng am nga ndongo ci kan concrètement dama ne la mouvement Y'en a marre mi ngi jib ci kan oui mais mi ngi jib ci mouvement yi fi ne tey d'accord on a une on a une mm-hmm. on a une mobilisation citoyenne mm. très intéressante au Sénégal depuis quelque temps et on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la politique du ma ne lépp Y'en a marre a ko waral mais Y'en a marre effectivement à partir de Y'en a marre énormément de mouvements ont émergé. kon coow li coow li yéen la. non ci lañ bokk. coow li coow li du ñun dong. mais ci coow li lañ bokk. mais lu tax ma poser question boobu c'est important. Oui. parce que dëkk bi jamono ji coow li bëri na loolu. jeunes yi ñu leen di joxe bi baaraamu tuuma ci ni nga xamante ni noonee la ñuy manifester ak anam yi nga xamante ni noonee la ñuy génnee seen mbir yu ni mel donc wax ni mouvement Y'en am na si nga xamante ni. joué na ko lu mënti am. bu mobilisation amee. Mm. dem inscrire ci list électorale yi am. oui dem di yëkkati baat. Mm. di naan monsieur le maire lii nga ma digoon gisuma li ma digoon walla li ma digoon foo ci toll. Mm. walla nañu saytu koom-koomu réew mi. nañu fal nit ñi ndax seen compétence di leen fal ndax seen ndax fi ñu far. loolu noonu mi ngi gën a am doole ci place publique bi. maintenant nag. les manifestations mm. buy am ñiy manifester mm. souvent ñooy mesurer effectivement tolluwaayu lu leen naqari ak ay actions yi nga xamante ne moom la ñuy poser dans la rue parce que jàpp nañ ni effectivement loolu moo mën a reculer loo état mais li ma jàpp mooy war nañu taxaw taxaw avec beaucoup de responsabilité